gaaw bi weesu rek sëñ bi dafa joxe ndigal ndigal loo xam ne la mu wund moo di taxawal lu ñuy wooye kër asaka yi nga xam ne gaaw ca ngoon lañ ko doon siiwal di ko jottali waa réew mi ak waa àdduna muy lu am solo loo xam ne moo waral ñu dellusiwaat di ci wax waaye daanaka lu ci matoon a wax rek bokk yi jiitu waxoon nañ ko waaye dañu dellu rek di waxaat ne asaka moom kenn mënta lay ba wax lu dul wax rek ne ponk bu lislaam la boo ne ponk bu lislaam la rek wax ji ferenklaayu ndaxte alquran da koo andi na andi ko boroom xam-xam yépp maase ci alquran tudd ko lu baree baree bari tudd na asaka fanweeri yoon yoo xam ne da koy ber boole na ko ak julli tudd leen ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar wax na ne wa aqimu salaata wa aatu zakata warkau maa rakiin bu ñu demee ci sunna ngën ji mi def dafa ne lislaam su doon euh, mbaar moo xam ne ay kenu moo ko téye ay jën moo ko téye juróomi juróomi jën ñoo ko téye ba leen di lim da caa boole joxe asaka boroom xam-xam yépp itam maase ci ne asaka farata la te ponkub lislaam la sëriñ bu mag bi foofa rek la jaar wax ne islaamukum yaa ayyuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikrul ilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakatun moom itam juróomi jën yi nga xam ne ñoo yenu lislaam mu andi ko ci bayit bayit ñaari bayit yooyu asaka nag doonul loo xam ne nit ki ci mbaaxam rek akuk laa biiram da koy génne rek jox ko ña ko soob waaye day loo xam ne da ko sëñta bañ ndax bu bañ ne farata la la wax ji jeex bañ ne ponk bu lislaam lislaam la wax ji jeex kon da ko sëñta bañ ndax yàlla da cee gàll ab yar te su ko génnee yàlla du ko jariñoo waaye da koy delloowaat ci ay bokki jullitam jaamoo ko yàlla ndax mën nañoo jaamu yàlla ci jaami yàlla yi asaka suñ ko dee joxe nam ware dana tax ñàkk wàññi ko lool dana tax ñi amul liggéey ñu bari am liggéey dana tax ñi seen bët xonq ñu mën a fomp seeni ronqoñ dana tax jirim yi ak baayo yi ñu am ñu leen saytu dana tax daal ba jafe-jafe yi nga xam ne dafa am ci jamono lu ci bari dana mën a saafaraw ndax nit ñi dañoo war di geesonte di bàyyante xel yàlla mi leen sàkk ba koo seen xàmmee ko ak moroomam ndax dañuy wuute kii dafa day njool kii day gàtt kii day xees kii day ñuul noonu ñu wuutee seeni man-man ak seeni am-am ak seeni pexe ak seeni dugg-dugg noonu lay wuutee moo tax yàlla waxoon ne wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq soo ko defee kon ñu xam ne ponk bu lislaam la soo dee baykat soo liggéeyee ba far mànku na xam ne la nga bay su matee nisaab asaka da caa war te sooy génne asaka ja fukkeel ba ngay génn loo wàññi rek juróom-ñeent fukkeel ba nga jox ko yàlla gana am nga nisaab bu dee jur bu dee jur gu gàtt gi soo ci amee ñeent fukki muy xar muy béy na xam ne am nga nisaab asaka da caa war bu dee nag soo ca amee fanweer na nga xam ne am nga nisaab asaka caa war boo dee yaxantu nag di commerce di jaay ak jënd moom itam soo amee nisaab nisaab bi nga yor ko ren ba déwén na nga xam ne asaka da caa war nisaabu nag kii commerce di yaxantu di jaay ak jënd ak lu mën a jaay ak jënd gannaaw looloo dafa dagan na xam ne suñ koy xayma ci wurus lañ koy xaymaa te buñ ne wurus nag or mooy or or nag dafa am kara yu bari waaye ba ñuy wax vingt-quatre kara ca lañ koy xayma bu fekkente ne li nga am daal téye ko ren ba déwén mën nga cee jënd juróom-ñetti fukki garaam ak juróom yu or 24 carats nanga xam ne am nga nisaab kon 85 garaam ci or 24 carats soo ko mënee jënd am nga nisaab te jii di ajjuma di ñaar fukki fan ci rakki gàmm biñ koy gëstu dañoo gis ne benn garaamu or 24 carats mi ngi jar juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñetti téeméer ak ñeenti dërëm ak ñetti fifteen juróom benn junni ak ñeenti té ak euh, juróom benn junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeenti dërëm ak ñetti fifteen mooy garamu or 24 carats loolu ma wax nag moom ngay multiplier ci quatre quatre-vingt-cinq grammes yi ñu waxoon léegi mu jox la deux millions huit cent quatre-vingt-douze francs CFA kon ku am deux millions huit cent quatre-vingt-douze denc ko ren ba déwén loola mooy nisaab war nga caa génne asaka boo ca génne asaka nag loola da nga koy séddale ñeent fukk da nga koy diviser par quarante su ko defee euh, lu mu la jox mooy asaka ja nga war a génne kon daal kii jaay ak jënd su amee nisaab ren ba déwén day xayma la mu yor ca marchandise seet la mu denc ca xaalis loola lay boole gannaaw nisaab la moom lay diviser par quarante. daal ki nga xam ne day commerce wala muy baana baana daal wala muy yaxantu ak noo ko mën a tuddee. su amee ñaari million ak téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti téeméer su ko amee ren ba déwén na xam ne am na nisaab su amee lu ko ëpp nag mënta wax su ko defee nag loolu lay séddale ñeent fukk ma da koy diviser par quarante lim bi ma wax léegi rek su ko doon génne asaka mi ngi ci génne fukki junni ak ñeent ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk xam nga ne am ñaari million ak juróom-ñetti fukki junni ak lu topp téye ren ba déwén yàlla laaju la ci lurul fukki junni ak ñeent ak weccet loola sunu borom dala bëgg a yërëm waaye bu fa gënoon a nga war ko jiim am na ñoo xam ne nag buñ ne asaka dañ koy woyofal te bu julli jotee ñu julli su woor jotee ñu woor waaye nañu xam ne ni julli doone ponkob lislaam ak woor ak dem mag nii la asaka doone ponkob lislaam te bañ koo joxe dafa am lu jur am na lu muy jur ci àdduna am na lu muy jur ci àllaaxira bu dee ci àdduna xadis ba nee na nit ñu téye seen alal duñ joxe asaka suñ boroom nattoo leen bekkoor daal ne bu lu woon ak bahima yi kon sax dootu taw kon sunu borom dafa ñeewant jur gi moo tax muy taw waxaat na ne képp koo xam ne da nga koo joxe ngir yàlla rek ak sàkku tuyaabo eh, yàlla nangul la ko waaye nag soo gantoone doo ko joxe dañ koy foqar ci ci yow te du duñ ca yam la nga am lépp tam dañ koy xaaj ci digg ba foqar ci ko ba nga xam ne yàlla ay waxam waaw rek la sant bu doon jamono joo xam ne sax lislaam dafa àgg fa mu àggoon ci doole mbooloo mu gàntu ne duñ joxe asaka dañuy xeex ak ñoom dañuy dal ci seen kaw ndax Aboubacar ne as-Siddiq mos naa xeexak ak mbooloo moo xam ne dañoo gàntu woon dootuñu joxe asaka am na ñoo xam ne nag dañoo xamul moo tax duñ ko joxe am na ñoo xam ne seen seen yëngu ak seen liggéey dafa yaatu ba tax duñ am jotu di ko génne waaye loo ñàkk ñàkk jot ni nga talee adduna soo ko talee sa borom rek da nga jëf li mu santaane joxe azaka nag dafa bari lu ci aju mooy jëf ko ndax li muy santaane bi yàlla rek jar na ko jëf ko ngir muy wane na yow sa alal yaa ko moom waaye moom moomu la am na ñoo xam ne seen alal moo leen moom nga fexe ba bañ caa bokk yow nga moom sa alal jëf ko ngir mu fóot sab xol ci jàngoroy nay wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun jëf ko ngir nga tàggatu ci joxe ab jullit rawatina ab taalibe dafa war a tàggatu ci joxe wa mimma razaqnaahum yunfiquun jëf ko ngir xam ne dangaa war di ñaq dafa am santaane yoo xam ne ñaq la laaj sa jëmm mooy sonn waaye dafa am santaane yoo xam ne ñuqi la laaj mooy nga làmb si ji sa sa jiba joxe ngir jëmme yàlla jëf ko ngir xam ne li nga yor moomoo ko boroom borom dala ko dénk jëf ko ngir xam ne moo lay sàmmal sa alal xadis ba nee na xasinu amwaalakum bi sadaqa nee na su ngeen bëggee ñàkk seen alal aar seen alal day leen ci génne àq yàlla dee ko joxe ngir bëgg sa alal yokk ndax joxe du tax a ñàkk di ko di jàll nag di jàll di jàll defe ne sooy jàll day tax mu bari te su baree da koy jël jal ko jël ko yombut wa ma am wa ma aataytum min riban li yarbu fi amwali nnaasi falaa yarbu inda allah wa ma wa ma aat wa ma anfaqtum min kon la ngay jàll yàlla amu soxla waaye li ngay joxe te yàlla tax lool am soxla dee ko jëf ndax day tax nit ñi sopp la nit ñi soo leen amalee njariñ dañ lay sopp dañ lay ñaanal ndax koo xam ne soo amee mu am day ñaan nga am koo xam ne soo yokkoo mu yokk day ñaan nga yokk moo tax dangay jox nit mu ne la li ci des yàlla na barkeel da lay yéene la nga yor te da lay ñaanal nga gën koo man te ñaare ki ëppal nit ñi njariñ day gudd fan te la mu man day yokk wa amma ma wa amma wa fa yamkusu fil ard nit nag su liggéey na fexe ba sàkk lu lew la ñu santaane waaye di ko fàggoo nam la neexe di ko fàggoo ci anam gu araam ba am ko nag bëgg koo def ci asaka wala ci jaamu yàlla yi sunu borom du ko nangu ndax yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba foo gis ñaari alal ju sànk ju laatu na nga xam ne ñàkk joxe asaka moo ko waral yonent bi nee na alayhi salaam maa talifa maalun fii bardin wala fii bahrin illaa bi xabsi zaka nee na foo gis alal ju laatu ci jéeri wala ci géej nanga xam ne ñàkk joxe asaka moo ko waral boo ne man de daanaa ko joxe te tewul sama alal laatu na amaana nga dend ak koo xam ne du ko joxe te ñax gu waw day lakkaale ñax gu tooy amaana it muy am nattu rek boo xam ne yàlla ma la ko teg moo xam la tax mu teg la ko boo dee joxe asaka di ko jox ña ko yelloo day tax euh, seen xel dal te bu seen xel dalee ñu tala jaamu yàlla nit ki bu xëyee di kër këri di wuti lum am amaana du tal jëfe ndigal wala bàyyi tere waaye su xel ma dalee rek dana tala jaamu yàlla di def la mu santaane bàyyi la mu tere moo tax mu ne fal yaabudu rabba hadal bayt alladi ataamahum min juu'in wa amanahum min xawf ba ñu demee ba seen xel dal ñu boole mucc ak mos rek dañuy daale tal yàlla euh, moo tax nag sëriñ bi joxe ndigal ne nañu sos lu ñuy wooye kër asaka yi di ko laaj ndax asaka doonu loo xam ne dañu ko daan bàyyi rek ku mu soob joxe wala nga bañ a joxe dana xud min amwalihim la wax nanga jël ci seeni alal sadaqatan tutahhiruhum sa tuzakkihim biha kon asaka dañ koy laaj sëriñ bi nag ne kon nañu sos mbooloo moo xam day laaj asaka am nay numéro téléphone yoo xam ne ku bëgg a xam looy joxe soo ca wootee ñu wax la ko man day am naa nangam bay naa nangam laa am ma day damay jaaye nangam laa am wax la ngay yëngatu wax la nga am ak ba nga ko amee ndax mat na ren ba déwén ñu ne la ku am nangam nangam ngay joxe ñu ne la su ma ko bëggee joxe nu may def ñu ne la nii ak nii ak nii ngay def ba joxe ko su ko defee ñoom buñ ca jotee nag na ñuy def ba seeni borom jot ca ñoom xam nañu ko ndax asaka bokk na ci li muy saafara nit ñi am lu baree baree bari euh, seen giirug dund ñii ñàkk seen giirug dund lislaam dafa bëgg loola wàññiku su ko defee da ngay doon ab surga tey su ëllëgee nga doon njaatige asaka suñu ko joxee nañ ko war a joxee da nga gis koo xam ne buñ ko ko joxee ren bu déwénee moom day joxe asaka waaye def ko weccet di joxe pari junni wala ñeenti téeméer ña ngi koy jox duñ ko jariñoo da jox nit ki loo xam ne dana ca mën a liggéey ku jàng mécc ba mokkal te amul lu mu def ndax amul ay moyen nga fexe ba mu am ay moyen di liggéey su boobaa yalwaan mi dana wàññiku taxawaalu bi dana wàññiku ñi bëgg samp kër te munuñ ko dana wàññiku ñi amul fu ñu dëkk di fanaan ci mbedd mi dana wàññiku su boobaa daal mbooleem li nga xam ne ay gàllankoor la ci jamono dana wàññiku su boobaa sax danga gis ak bokk gu yàqu woon te dana defaru ndax soo amee sa loxo jot sa ginnaaw ngay seetaan say bokk doo leen dimbale buñ la ko waxee ak buñ la ko waxut dañ lay jéppi dañ lay mere nit dafa fonk boppam soo ko fonkee mu fonk la soo ko geesoo mu bàyyi la xel soo ko dimbalee mu ñaanal la nañu xam ne itam li ñuy wax waqfu lislaam da koo santaane fu mooy lan mooy nga wut luy jur alal ne jox naa ko yàlla tabax ab immeuble bu mag ñu ne def naa ko addiyee jox naa ko sëriñ bi mooy jox naa ko yàlla ndax sëriñ bi loo teg ci loxoom teg nga ko ci loxol sunu borom su ko defee nag muy loo xam ne la cay roose ci alal dañ kër asaka yi moo koy jël di ko def fa nga xam ne fa lañ ko war a def kon daal képp koo xam ne am na loo war a laaj soo laajee ñu tontu la soo am loo joxe soo joxee ñu jël ko defal la ko nag fa nga xam ne fa lañ ko war a def waxtu wi moonu dab waaye li ñu war a leeral des na ñu ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu sàmmal na sunu kilifa gi xalaat bu rafet bi mu def nga xam ne ca jamono saxaaba ya moom lañ doon def mooy di ko laaj di ko dajale di ko jox ñañ ko war a jox ndax ñi koy laaj ñoom xam nañ fa ñu ko war a dugal xam nañ ñi ñu ko war a jox ndax wa fi sabilillahi ca sax naal bii mu naal rek mën na caa tàbbi muy di ko def ci liggéey bi nga xam da koo sumb kon yàlla nañu yàlla sàmmal sunu kilifa guddal fanam tam doole ko wér ba lépp lu mu sumb rek yàlla na ca am ndam te nu ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.